jërë ngeen jëf mbokki info sport ñoo ngi leen nuyu baax di leen ziar di leen wax ngeen di abonné ak di partager dañuy doore xibaaru guddi gi fële ca Barcelone Laporta ancien président bu Barcelone boobu pare na pour defar dundam fële ci FC Barcelone waaye nag daal ci ànd kii di Pep Guardiola bu dikkee ki mu àndal ci liggéey bi mooy Pep Guardiola ngir ñu ànd boobule procès buñ ci jógee dañuy wax ci. Real Madrid ak Atlético de Madrid jamono ji ñoo ngi waxtaan pour James Rodriguez dem signé ji contrat Atlético de Madrid Real Madrid bëggul ba nag dem gratuitement buñ ci ba nañu wax ci Real Madrid tey daal di moom mi nga xam ne jamono ji dafa bëgg kii di Kingsley Coman pour daal saison bii di ñëw te daqut saison bii di ñëw mu jënd ko. loolu nag Sky Sport moo ko xam ne dañuy wax ci Manchester City bu Pep Guardiola jamono ji ab latéral lay wër ak ñaari défenseur central ak kenn koo xam ni daal mooy wuutu Leroy Sané bu fekkee day dem ca ca euh, été bii di ñëw. dañuy wax ci Thomas Partey l'international ghanéen nekk joueur Atlético de Madrid Arsenal bëgg ko moom it mu waxoon ni bëgg naa dem fële ci Arsenal waaye daal boo moytuwul loolu du antu ndax coronavirus bi dafa xaw daal laal Arsenal moo tax du mën a jënd kii di Thomas Partey derby bi war a dox ci diggante Schalke ak Dortmund boo moytuwul ñeent joueurs yi muy waaji lim duñ ci bokk Emerick Sane Witsel ak kii di Marco Reus Marco ak kii di Danexel Zagadou dañ koy jeexalee fële ca France daal di wax ci kii di Bertrand Traoré di joueur olympique de Lyon waaye moom li mu bëgg mooy jege fële ca Lyon daal di Real Betis nag pare na jamono ji pour jënd ko pour jënd l'international burkina bi boobu dañ koy jeexalee ci Lionel Messi moom mi nga xam ne ginnaaw bi mu doxee benn ndimbal bu toll ci un million d'euros rek jox ci benn hôpital bu nekk fële ca Barcelone ci mois de mars bi ñu génn Lionel Messi daal di defaat beneen ndimbal jëmale ko ci juróom-benn hôpital yi nekk fële Argentine ngir daal gaa yi mën a gën a jàmmarloo ak xeex bi ñuy xeex ak corona.